daa ngi yow kii léegi changé na kii afrom bi mu doon def yéen a koy fàttaliku ba xale ndakaaru ñëpp xewal ko kenn mësul gis loolu bi dafa tombé ah elle est belle ah mi moom lan lay xaar pour am jëkkër <laughs> dinaa ko laaj la ma koy woyal sax <laughs> t'en va pas <laughs> mon amour pardonne-moi je saurais te trouver depuis que depuis que t'es parti c'est le vide autour de moi rebattu. Te voir revenir était mon le plus ardent. <laughs> Hmm. Bienvenue. Ça va? Merci beaucoup. Mbaa bi dañ tuwoo tey rek. Si. Ouais, parce que j'imagine yéen du ngeen teel a yeewu waa. Ah. Yegsil waa yegsil. Yegsil yegsil. Merci. Salaamaaleykum. Mado xam naa xamuloo ko ku bees la stagiaire la fii. Bijou elle vient d'arriver tey lay doog a commencer ci télé bi. maa a <laughs> kii yaa ay dara moom sànq la ñëw moom tamit. El Hadj El Hadj Oumar gar mi depuis jamonoy demoon naa fa nag la fi nekk. TFM demoon naa fa. fi <laughs> Elaba tey moom je te donne ma place. sama sama place daa lay wax da ngay da nuyu da ngay nuyu Alfi ba ah, pare. non kaay ma jox la sama place. <laughs> voilà prends ma place. bu ko defee ma toog sa wet. lii de bu bees la. et eh, Adji est-ce xam nga ni man je suis amoureux de toi. j'ai jamais voulu te le dire parce que wóorul woon quoi. dama doon ragal sa papa wax ma dara parce que tamit sama papa la quoi maintenant xaw ma yow lu ci sa xalaat quoi. man man jëkkër rek laay wër. c'est vrai. tu es amoureux de moi bien sûr. wax ko du tase gersu. <laughs> c'est c'est toujours un plaisir bu ko dragué bu eh, ñëwee yoon nekk ci laa wax kenn laaju la. xam nga lu la doon toppatoo sa robe ma jàmm nag ma may jàmm de yow. bienvenue ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo xëy ci fajar ba tey di la xaar ah, parce que ñu ngi wax ni démb tey yow yaay nekk invité yeewu leen euh, dañuy def lancement vidéo bu bees bi donc beaucoup projet projets yoo xamante ni on en parle tout de suite mais dañu lay bàyyi nga nuyoo ak suñu xarit yi waaw duma def lu dul nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu téléspectateur TFM yi di mhm. nuyu tamit animatrice yeeg animateur ñëpp ñu fi mhm. toog mhm. di euh, souhaiter une bonne heureuse année à tous les Sénégalais di ñaan aussi 2016 doon atum naataange comme nee nañ 2016 boo ko renversé ça te donne la joie maa ngi ñaan yàlla mu eh, doon et c'est vrai moi j'ai <laughs> mu doon bonheur pour tout le monde pour tous les Sénégalais pour euh, ñëpp réussir seen i projet mhm. voilà Sénégal naat doon dëkku réewum naataange. voilà alors Adiouza tey ku wax Adiouza wax euh, Père Ouza waaye fexe nga nag euh, parce que doon doomi docteur du tax nga nekk docteur. <laughs> fexe nga ba jaar ci sa yoon yow depuis boobu ba tey yaa ngi lu ce matin def nañu benn exercice ku nekk wax nga woy bi la marqué ci Adiouza c'est-à-dire ci ci ci ci ci diggante juróomi at. fexe nga ba prouver ni artiste plein nga alors tey boo doon def peut-être bilan à mi parcours lan lay nekk ci sa carrière waaw du ma def lu dul remercier surtout les sénégalais mhm. parce que samay début musique sénégalaise yombul woon mhm. dama jóge woon Paris ñëw mhm. ñëw démarqué wu ak benn musique boo xam ne mélange la woon. ndeysaan yaaw dama ci moom. waaw euh, <laughs> ma ne ko la entre classique ak mbalax muy euh. nobel <laughs> donc c' était pas du tout facile ma ci ma ciy remercier ñi nga xam ne artistes musiciens yi nga xam ne ñoo jàppoon ci album boobu. Mhm. ñoo defaroon album participer ci album boobu ñoom Ibou ñoom Cheikh ñoom ñoom euh, Samba Lawbe Ndiaye. Mhm. ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci album boobu. ba mu def tabac au Sénégal ñoom Samba Ndox waaw mhm. yàgg nañu rek man. ñoom Cheikh Lo ñoo jàppoon ci album boobu ba mu def tabac. donc maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp. avec le temps nag aussi j'ai fait d'autres albums dem naa fi Brésil def Samba Mbalax mm-hmm. ñëwaat def euh, voilà j'ai fait beaucoup de fusion quoi mbalax fusion jël mbalax mélange ko ak d'autres sortes de musique. voilà donc ça donne ça donne identité Adiouza. alors li ce que nous entendons ni en sous impression ci émission bi euh, da ñëwaat encore ak style boo xamante ni euh, bi ñu ko dégloo ñun dañoo valider quoi euh, pourquoi toujours recherche lu bees loo mën a boole ak musique sénégalaise bi da nga gis ne sa ñoom papa yóbbu ko woon fenn moo tax nga bëgg ko mu nga bëgg mu dem gën a dem. non même la may nuróol de. non même pas du loolu au fait. au fait ku ku xam Adiouza xam ne dafa bëgg di fusion. fusion mooy. mooy nga jël musique tel ak musique tel. nga boole leen nga boole leen jaman waaw boo xoolee sama album yëpp am na fusion. est-ce que ça veut dire bëgg njambaan. waaw dama bëgg njambaan. njambaanu buñ njambaa non njambaanu madd madd laa ah yes madd moom ku may ku may ci madd nga may amee c'est pas vrai <laughs> c'est clair <laughs> donc voilà musique la boo xam fusion mooy musique boo xam da ngay jël telle musique nga mélanger ko telle musique mhm. donc ku ma xam rek xam nga ne samay style loolu la te bi ma ñëwee ba tey loolu la nekk di def léegi musique euh, sénégalaise j'ai pas je vais pas dire que dama bëgg jël waaw dama gis ne musique sénégalaise demul ma bëgg def euh, autre chose. Mhm. musique dafa bëri voix. Mhm. dafa bëri voix. Mhm. am na musique traditionnelle am na hip hop am na ay musique ethnique donc na ku nekk défendre fi nga nekk. musique bi nga nekk na nga ko gëm défendre ko bu dee traditionnel la nekkal ci traditionnel nga défendre ko bu dee mbalax la. fait du mbalax pur et dur. man mbalax fusion laay def maa ngi ci nekk di maa ngi ci sama. mais man j'ai remarqué yëpp ngay def ah léegi. maa ngi ci sama gis naa la ngay bàkk sa papa. ngéwél ko ngéwél bu rëy mbaa teral na la. <laughs> tëral ma ndox nee na ko waroon jël kër gi caabi kër gi. jox ko ko <laughs> parce que way may alors euh, euh, on va on va on va aussi euh, euh, ci li nga xamante ni yaa ngi koy préparer gis na ñu ne da nga nekk a cheval entre Sénégal ak France pourquoi. ah waaw actuellement maa ngi à cheval entre Paris et Dakar. parce mhm. que dama nekk ci benn projet artistique boo xam ne comme ni ma koy waxee. diffusion lay doon incha allah bu war a génn boo xam war nañ ko présenter un peu partout dans le monde mhm. donc ci lañ nekk di liggéey di def ay recherche ñu ngi wër ñu ngi wër rek ba ba ñuy trouver affaire bi quoi dafa am ay artistes yu mhm. précis yoo xamante ne ñoom ngay liggéeyal foofu wala est-ce que juste yow ak waa studio bi yéen nekk di def seen ay recherche pour trouver li ngeen di seet non y aura y aura des feats avec d'autres artistes. non je garde pour moi. ma ne ko y aura des feats ak d'autres artistes. actuellement mais incha allah su paree rek voilà les gens dinañ gis. allez on vous offre euh, euh, d'abord vidéo d'Adi euh, est-ce que mën nañu ñëw ci bu njëkk bi balaa ñu ñëw ci bu bees bi. ah oui parce que moom mooy gën a la yo euh, euh, clair backstage bi yaa <laughs> de parti boobu war mbi yow yow parti boobu rek moo la ci neex quoi parti boobu moo la ci neex c'est c'est très bien. <laughs> yow lii dafa neex de et en plus c'est une danseuse ah. xaw ma ndax xam ngeen loolu. bëri na ci ay chorégraphie ci vidéo wala ci spectacle am moom moo koy moom moo koy jàngale de. en plus en plus waaye bii yaa ko jàngale. non non non <laughs> non non non non nekkuma danseuse au fait. damay damay répéter lu bëri je répète beaucoup. bu ñuy ñëw voilà voir buy ànd ak danseur yi di def chorégraphie bi et ça tu fais. voilà voilà xam nga xam nga rek voilà ñëw Sénégal mais gisuma la ci ci chorégraphie non léegi léegi dama damaa bàyyi fecc. <laughs> Ah, mais non non mais attends attendez attendez attendez yaa leen man damay laajte li ma intéressé <laughs> no ko ne wax li ko far man moo wax li ma saf. saa yu star ñëwee fii damay wax li ma far donc li ma far mooy parti boobu indil ma siis. fecc bi indil ma siis indil ma siis foofu. Yaawo. Ndeye Diké indi ma chaise chaise derrière. derrière toi a chaise. ay Ndeye Diké oui. derrière toi a chaise. parce que c'est une partie qui m'intéresse tellement El Hadj Man Mbaye ah, Mbaye Gane ma. man Pape non non man boo xam ne daf ma ñor ci clip bi. man dama ànd ak yow. ah waaw ah, ah, ma nga xool li ma ñor. waaye yow léegi lu la ñor. amen amen Ndeye Diké non c'est la Côte d'Ivoire et c'est le milieu milieu milieu milieu milieu sori na ma lool day dikkee milieu milieu milieu milieu ah sori na ma lool dama jege mais Pape Cheikh loo naan ni <laughs> waaw léegi euh, vidéo bi Mao s'il te plaît est-ce que mën nga ñëwaat ci séquence bi ma xool ko tuuti xool ndax dinañ ko mën waaye partie boobu dafa intéressant après ce qui m'a dérangé un tout petit peu mooy yow tu n'as pas fait comme li nga doon def ci sa clip yëpp eh. parce que bu sa fecckat yi feccee da ngay ànd ak ñoom fecc Adiouza est-ce que mën nga ñëw bégal fecc li ñuy fecc ci clip bi chaise ngi tege bàyyi naa fecc wax na la bàyyi naa fecc ajuza ajuza ajuza ajuza ajuza ajuza xaw ma lu ñu fecc xaw ma lu ñu fecc boo ko fecculee ma fecc ko rek xam naa dama bàyyi may war mbi ci télé boo ko feccul dama koy fecc ah, boo ko feccul dama koy fecc waaw waaw boo ko feccul dama koy fecc boo ko feccul dama koy fecc laa wax boo ko feccul dama koy fecc voilà c'est parti ramène la musique la musique ayta Eh. dalay dalay jàngal lu bëri da ngay rencontrer voilà da ngay rencontrer culture yu bëri yoo xam ne yow du sa cosaan mhm. yow ñoo ko yow dara mhm. mais da ngay gis ne yaa de des y a d'autres yu fa nekk mhm. yoo xam ne peut-être nekkul ci sa culture mais ñaar yooyu boo leen boolee dalay dalay jox ouverture donc da ngay am gis-gis bu bëri da ngay am ouverture bu bëri donc looloo waral nag Adiouza man sama àdduna métti lu ma ko. Mm-hmm. métti lu ma ko du tout. Mm-hmm. donc dama ko yombalal ko yombal trop voilà je suis naturelle comme ni nga ko wax. Ah. lu ma sentir laay def. lu ma sentirul nag du ma ko def. ok mm. ay lu ma bi wa bi waral coow lii dama bëgg ñu ñëw ci léegi nii parce que moo tax. mais doo ma jugloo fecculoo ma maa ngi ni sonn. li nga sant xam nga da ngay def li nga sentir man tam li ma sentir laay def. fii la ñu mayante ndey dikke léegi <laughs> yow après di nga ma wax ñan ngay may ndey dikke ci ci ci yi Aby a ngi fi Viviane a ngi fi euh, Aïda Samba ngi fi euh, Mbène Diatta Seck a ngi fi Coumba Gawlo Seck a ngi fi après di nga ma wax ñan kan kan ngay may Ndeye Diké parce que mayante mayante nañu Ndeye Diké mais pourquoi même woy bi nga def ko une autre version d'abord hmm. raconte-moi l'histoire voilà l'histoire l'histoire est venue euh, d'un jeune mm No Face mm -hmm. undercover hmm. benn rappeur la boo xam ne ni de je l'ai j'ai fait appel à lui. Mhm. un jour ça fait ans j'ai fait appel à lui. ma doon wër benn beatmaker. Mhm. ma ne ko je cherche un beatmaker benn musique boo xam ne dinañ ko mën matcher ak mbalax et tout. comme ça mu joxe bu ñuy dem si euh, wane suñu musique feneen. Mhm. ñu yóbbaale suñu sonori mbala. Mhm. ci la rencontré No Face mu ne man wër naa ko bu yàgg je l'ai trouvé. Mhm. le le gosse il est prétentieux il a trouvé. <laughs> ci sama xel maa ngi naan le gosse il est prétentieux il a dit qu'il a trouvé une musique noonu. mais après bi ma toogee déglu ko ma ne pourtant le mec il est intéressant ça peut le faire ma ne il est intéressant le petit là il est très ambitieux. donc je bosse avec lui on va on va faire des des, des choses ñu def ay recherche mhm. léegi nag ci laa ko am na lee man sama expérience ba tuuti ci musique mhm. ne ko jëlal lii nga boo nga jaxase ko lii boo ko jëlee peut-être mën na la jox mën na la jox ay règles ci musique yoo xam ne nii peut-être ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher hein mhm. mais essaie la rek essaie lii essaie la wolof beat essaie la benn essaie la musique bu bees bu ñu bëgg a essayer donc on peut dire que c'est un style de musique bu doog bu judd bu doog a judd ah, bu judd mën nañu wax loolu ah on peut dire ça pourquoi pas ah. pourquoi pas modestie mise à part ah. pourquoi euh, pas style bu bees la bu judd boo créé quoi. xam nga musique doo ñëw ne voilà. c'est ça non il faut laisser les gens juger. on on verra dans l'avenir dans un an dans deux ans. Mhm. on verra si les gens ont suivi. Mhm. ou pas si n'ont pas suivi. on essaie autre chose comme ça papa dañ koy waxee. voilà déjà déjà déjà. déjà déjà déjà déjà on regarde c'est tout nouveau mais c'est magnifique. tuerie la tuerie tuerie. saytu pexe noon teel ma ràññee baax ak li bon daddy I love you baay bu sañoon doom jaray maasam baay bu sañoon dund ko fekkee na mi doomam suñuy lim ñu baax ñu jiitu fa kuy seet ko ju baax fekk ko ci moom sama xol mooy man savez quoi am nga lu may inspiré way bi ah c'est vrai que sa papa nga ko way mais dafa gën a nuroog koo nopp nga woy ko waaw ça sa ressemble sa c'est une chanson d'amour c'est mm. c'est am mbëggeel la boo am ci sa ci sa papa euh, mais euh, joxula woyu mbëggeel quoi koo nopp hélas man loolu la ma jox quoi mais bëgg mais bëgg Baye Cheikh ci papa la tàmbalee waaw bëgg boobu xam ah, bëgg dafa bëri façon Baye mm. ah, ah bëgg bëgg bi daal bëgg bi fa fooree waaw bëgg ko woyoon koo xam ne kii daf ko nopp comme yow ni ko bëgg a marié bu la ko woyoon voilà voilà voilà yow boo ko doon woyee ki nga nopp nan nan nga koy woyee Adiouza entre nous sax kan nga nopp yow franchement pour dire vrai. ki ma nopp. wax ñu rek on est entre nous <laughs> on est en famille. ah Mohamed Mohamed ñëwal ñu kañ taxaw nii rek. xam naa ne on est en famille bokk ci bokk ci quoi lii télé la rek. te fii xanaa xamoon li ngay wax fii rek lay yem de la télé franchement kenn du la dégg kenn du la dégg voilà <laughs> Mohamed ñëwal rek yow tamit waaye ah ñëwal taxaw nii rek. si semaine bi français la de. dañ <laughs> ko fàtte passé kay. ma weexaat Ndiaye ngay toppandoo noonu def balaa. ak sama sabadoor bu gudd te taay kat robe bi xew doo ci mën a dox yii boo ko solee doo mën a écarter. waaw doo ko la fa laay mujjee de mode baaxul. wala a di dàq de nga <laughs> waaru. oui <laughs> ah, bëgg mu wax ma quoi franchement. et c'est question boo xamante ni mu ngi woon sa làmmiñ. Adiouza kan la nopp. on veut on veut savoir. voilà parce que am na lu ñuy dégg. waaw am na lu ay yu ñuy dégg. quand même ah lu ngeen di dégg waaw léegi ma téye téye le micro bi comme ça ma kii ko léegi am na question yoo xamante ni Mouhamed Ndiaye moo ko mën a laaj man mënu koo laaj kon mbooloo mi ñu déglu ko. li ñu wutalee. ah yow loolu mu man damaa yaru. waaw ah non am na ku mu bëgg. ah am na ku muy génn laaj ok après mu woy mu woyal woy bi bu ko mu soppi ko woy ko ko. koo xamante ne ji Paa waxuma li gàtt mi wax de. waaw ah. waxuma ku ay papa ak ay yaay de. ok mu nopp moom. ok nekk ci xolam léegi léegi léegi bisu bisu da nga may jox suñu machine bi ñuy waatee machine boobu nekk ci mado ñun fajar gi dañuy waat. da pour lépp lu ñuy wax nekk dëgg. donc machine baa ngi. détecteur de mensonge donc Adiouza bu waxul dëgg rek machine bi daan téye téye téye. da nga koy féminiser dan ko. nan la nan lañ koy waxee. non da nga koy féminiser. ah waaw waaw changer données parce que yow lañ ko joxoon avant ngay dugg. <laughs> yooyu ngay wax d'habitude tegal ni sa loxo rek. soppee ko nii rek ngéwél gi yëpp jaru ko. soppee defal nii rek ngéwél ga torop. <laughs> c'est bon d'accord alors Adiouza. na nga teg sa loxo nga juré ni li ngay wax yëpp dëgg la. Mhm. machine télé kii bi nga ni li may wax yëpp dëgg la. tu le jures devant devant notre appareil à détecteur de mensonge. <laughs> je le jure devant. le détecteur de mensonge devant le détecteur. <laughs> de mensonge. <laughs> yes. donc tout ce que tu pourrais dire pourrait être tenu contre toi. si c'est faux waaw si li may wax dëgg. ay kàcc la donc bi dina ko kii. donc réponse de Adiouza. kii péép péép péép péép péép ndax maa rey tant que tu dis pas la vérité la machine yow laa nopp léegi péép péép péép péép kan nga nopp. nopp ma kenn. piip kan nga nopp. yuuxul ba sa baat <laughs> eh, mais tu as juré dangay wax yow tam aju léegi jox ñu xola léegi jox ñu indi euh, léegi baal nañ la ndax baal nañ la tur bi. est-ce que am na koo nopp oui ou non franchement tu nous dis la vérité. waaw am na ko oh. ah am na ku mu nopp donc bàyyi leen ko. est-ce que tu connais Chérif Diop bu TFM. réponds. mon ami ton mon ami c'est mon ami. vous vous de temps. depuis plusieurs années hein. ah. bah depuis plusieurs années. que vous êtes ensemble. non. Pip, pip. Ouais, mais bàyyi dama koy tuumaal jabaru Serif rek seetaan mais yow li nga bëgg a dégg waaw bu ma dugal de accident de travail suba tey <laughs> Pape Cheikh bu ma dugal de d'accord ok mais quand même mais quand même nekkatul au cœur à prendre parce que am na koo noppi waaw am na vous êtes ensemble depuis combien de temps le micro depuis plus d'un an hmm. d'accord ok les initiales et eh non on lui eh pardonne ça quand même ah mais non et eh, on lui pardonne ça benn benn rek bu la neexee sax mën nga ko jël ci digg bi. waaw ah, benn initiale. waaw P. wéé eh, Pape Cheikh Pape Cheikh Pape Cheikh. merci donc elle amoureuse bàyyi leen ko boo ko doon woyal dadi bi nga soppi ko euh, nan nga ko koy woyalee juste acapella bu ndaw. ma woyal ko ko waaw. kon ko naan rek xam nga mën nga am sa sa chéri di ko woowee daadi aussi. di ko daadi papa. est-ce <laughs> woy bi kan nga ko woy. pourtant wax nga dëgg de. moom xalaatu ko sax. waaw woy bi koo ko woy. xanaa papa. piip piip. <laughs> daanu fii. maa ngi bëgg a dee. sa baat bi dee rek. <laughs> mu ngi imbeeku rek. bon on est content donc chante lui chante lui la chanson si c'était pour lui. saa yu ma jaaxle moo may sotti xalaat. c'est yu ma jooye moo may def laat. saa yu ma wéete daal di ko gisaat. daati I love you. su la ndamee nga leeral sama yoon. di ma xelal ci moytu pexe noonu tel ma ràññeloo li baax li bon daati I love bravo on applaudit hein euh, euh, euh quand, le mariage bientôt bientôt le mariage c'est pour bientôt jàppagu leen euh, si c'est pour bientôt oui. et eh, jàpp oui oui nous on invité mais si vous jàkk rek ngeen koy def. man de maa àkki moo maquillage bi <laughs> maquillage on est on est content en tout cas on est con on content euh, content on est content tey bi ak euh, Adiouza donc vidéo bi tout nouveau elle a beaucoup de projets avant qu'elle nous en parle euh, Mohamed Ndiaye lañ leen di àndal lañ leen di bàyyil mu def ak revue de presse yow tamit tu vas jurer que li ngay revue de presse dëgg la. explosé. ah bi explosé. <laughs> Mouhamed Mouhamed est-ce que mën nga waat di liggéey revue de presse dëgg la ci. machine bay explosé kon day explosé ah. kon ñu bëmax la nga dem. ah, ah wala da ko bëgg a laaj dara. non na juste que rek xamal ko ne ko ki jël xolam jël na xolu gaa ah. oh. ki jël xolam jël na xelu gaa ñëpp. mais xel baaxul de. <laughs> yàlla na xel de. <laughs> mais Pape ñi nga gis ñuy dee di màttu ñëpp dañoo lekk riba. si eh eh kaay ma la benn affaire eh, am na ñoo xamante ni bu ñu deewee jarul autopsie de <laughs> xale yi jigéen ñi siiw ñoo leen rey. barki Serigne Touba yéen ñi yi faites très attention yéen a ngi rey ay nit sans vous en rendre compte surtout vous les stars c'est vrai hein ah y a de gens yu yu dee yu ñu suul yéen a leen rey de si si si jarul autopsie de <laughs> elle a tué de mecs cette fille ma bëggoon la ay jëppam ah. jërë ngeen jëf. ñu xool observateur lu. non machine bi foog ma ko yóbbu léegi réunion <laughs> léegi machine bi dama ko yóbbu réunion Youssou Ndour bu waxee lu dul yoon ci réunion bi rek ma ne ko piip piip jërë ngeen kii ay te ma ma la sam xam nga. faites très attention boo waxee lu dul dëgg rek. bu ñu lay dàq dàq collectif lay doon. voilà ñun man rek la ñuy dàq. ñun topp. <laughs> te bu ñu ma dàqee kat aw ma fu le tour de toutes les télés. laaj ko fekk na ma télé yëpp laajal Adiouza yëpp te ba bax ko. wuyu ci biti jël air may la gërëm de presse. waaw